ma ni sa borom kër nee na bul génn da nga xaar ba sànni ngeen ànd nga génn da dëgër bopp wow la yow ku soog nga. sama yaay la am naa droit seeti ko te li ma ko defee noonu bu doon à dama koy defaat. ne bu doon à dama koy defaat sama yaay la am naa droit dem seeti ko lii lan la nii man bu ma kenn ah waxu ah mbokk yi yéen a ko <laughs> même day delluwaat kër yaay. kii dafa mel ni affaire yi mu doon jël loolu ñu commencé di jël di ñu ko nëbb. ah en tout cas daal policier du waay doon. lii la ko nar a racine